salaamaaleykum sama gars yi j'espère que vous allez bien président de la république nee boo sàgganut danañ càmbaraat constitution bu Sénégal ci référendum ngir coppite à défaut d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale moom président de la république woo na ay ministres am ne leen cent jours yi lu ngeen ci jot liggéey lu ngeen ci def kaay leen ñu xool bilan Ousmane Sonko daal ne mboolem contrat bu ñu fi mosoon signé ci jamonoy président Macky Sall te mu bokk ci secteur bu stratégique teg nañ comité boo xam ne daan ko càmbar ba xam loola lan moo ci njariñu Sénégal waaye moom Ousmane Sonko yemu ca tey exhorté ministre mi ñu def ni président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dem def déclaration de patrimoine ñu xam li ñu am coow lu mitti ci marchand ambulant yi ak mairie Dakar Plateau agent yi fa ñëwoon dañ leen a dàq ñu daw waqit Alioune Ndoye maire Dakar Plateau nee na dina jàkkaarloog taskatu xibaar yi marchand ambulant yi ñoom nee na ñu ngi lancé appel état bi am na ñu ci jot a teg loxo nag marchand ambulant yu Kër Massar yi ñoom maire ba futt lañ def ndax Ousmane Sonko nee nañ ñoom waxu leen woon loola waaw cinq cent cinquante sept commerçant la ñu teg loxo def leen ay daan ndax liñ leen waxoon ne nañ ko jaaye prix ñoom danoo lank ba tëdd fi suuf waaw lu war a tolloog sept cent euh, cinquante soixante sept milliards la ñu ne def nañ ko kon ci ay pour courant mën a yegg ci village yi diggante deux mille douze ba deux mille vingt deux waaye directeur bu bees bi nee na bëri na ci mbir yoo xam ne pasar pasare xaalis la gënoon a nuru ka leneen trente milliards la ñu jàppati ci dorog yonent ba nekkoon Kolda ñu doon ko toppee pédophile ka doon woote boppam yonent ñu doon ko toppee pédophile ak euh, viol yoon wàcc na ko imam bu ñu rapatrier France ndax ay discours ay jihaad affaire yooyu mu ngi ci réew mi fi mu ne nii ndax Sangomar gii duñ ko tuddee Cheikh Mouhidine Samba Diallo sama question la.